TV ravi de vous retrouver ci seen euh, programme bu yees bi nga xamante ne nag euh, tey lañ ko fasciné door dégtal leen ko mu tudd nag 100 euh, pour cent actualité ñu fasciné ci ànd ak ki nga xamante ne nag mooy doon à chaque fois suñu chroniqueur bokk léegi ci kër gi di suñu grand Pape Ndiaye ngeen xamee ko lool miin lool également kanamam ci écran yi di taskatu xabaar bu mucc ayib li ko waral nag moo di liggéey bu set bi nga xamante ne yàgg na ko def bi bu mu dalee nekk ci média beeg léegi ñu am mbégte nag grand vraiment di la compter parmi nous di la remercier waat également également ci sa disponibilité te it di maa ngi lay fay mhm. nuyu di nuyu waa kër gi yëpp waa Sénégal set gi yëpp mhm. ko jiite ba ci gën a féete ndaw mhm. di ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy topp à travers chaîne bi di ñu seetaan bu baax a baax euh, Sénégal set moom yàlla def na ni dafa bokk ci chaîne yi nga xam ne dama ko doon bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax contenu riche yu am solo yi nga xamante ne à chaque fois dañ koy dañ koy kii waaye tamit ak audience bu am doole bi nga xamante ne am ngeen ko ci Sénégal ci public bi moo xam ñi nekk fii biir réew mi ak waa bitim réew kon mbégte lay doon vraiment ñu ñëw toog waxtaanee lépp loo xamante ni. te léegi nag <laughs> ñu ñëw di di di di di di di ñëwaat. waaw waaw rien ne s'oppose moom en tant que confrère invitation ko bañ. saa ko actualité commandé rek. jeex na ñu ko. Mhm. donc grand fi ma bëgg nag ñu njëkk rebondir mooy déjà euh, manifestation bi ñu nemmeeku euh, ni ki euh, barki démb foofee ci place de la nation forte mobilisation bu waa Yewwi Askan bi déjà ban bilan lañ ci war a mën a jàpp. waaw bi ñu ci mën a tiré de mooy. mën nañ jàpp ne action la boo xamante ne dañ koy inscrire dans le cadre de la démocratie parce que démocratie ci am réew muy dox.

jóge woon ci région yi di ñëw ñii ñu leen di dëpp ñii ñu bi na ko waaye tamit le pari lu toll ni mobilisation nationale bi ñu woote jàppoon waroon na ëpp gën a ëpp doole ni parce que tamit mobilisation nationale lañ def kaar ah. yi jóge fu nekk ñëw du loo xamante ne Dakar kese la yem waaw xam nga le problème fondamental dans ce mooy hmm. euh, lu jëm ci wàllu manifestation yi euh, délai bi nga xamante ni ci la la préfet di tontu xam nga Sénégal dañu seetlu parce que loi bi li mu wax dafa leer mm. benn manifestation boo koy demandé soxlawoo autorisation da nga yëgal préfet rek mu mën a jël ay matuwaayam takk der yi pour ñu surveiller la mm. ñaareel bi loi bi dafa ni bu bu teelee ba teel 15 jours avant manifestation bi war nga ko yëgle bu yéexee ba yéex ñetti fan mm. mais problème bi mooy préfet balaa ñu laa tontu ci jour manifestation bi lañ lay tontu yow mi organisé xamoo ndax dinañ ko autorisé xamoo ndax duñ ko autorisé xamoo lan ngay wax say militant xamoo lan ngay wax say organisateur donc loolu lu jar a xoolaat la. waaw mais loolu nag yéex a tontu bi ñuy yéex a tontu boobu nag ñoom ñoom déjà côté yeewu ñoom ils étaient engagés ñoom manifestation bi ñu ko autorisé woon ou tamit ñoom dañu ko fas woon def. Mm-hmm. voilà donc est ci loolu jàppoo ni comme mobilisation nationale la ñu waroon na ëpp doole nii parce que bu ñu ko comparé par rapport ak waa benn boo ko yaakaar seen mobilisation département yi ñu faral di def <laughs> daanaka ñoo yem mbooloo. xam nga balaa rapport ak nombre de personnes yi ñëwoon foofu ou foofu mm. laay mën a apprécier mm. mais à vue boo jàngatee image ak vidéo ak ñi nga xamante demoon nañ sur le terrain yëpp mais da gis ne côté euh, maanaam tey jii nii ce sera difficile dina la jafe lool nga ne ma côté bii mm. manifestation bi échec na ci mbooloo mi ñëwoon nañu képp kuy seetaan gis nga fa mbooloo communication bi jàll na. dégg maam maanaam lañ bëggoon déroulé yëpp déroulé nañ ko sans encombre. Mhm. amul benn gàllankoor boo xamante am na ci def nañ ko ci jàmm. Mhm. ñëpp ñibbi wat toog seen kër. di jàmm non am ah, ci am ah, gis ñoo bëgg mhm. def seen liggéey ñu xañ leen ko par exemple am na tamit ay oto yu fa wane ñu saccagé ko ak yu ni mel. est que tamit yooyu tey ci manifestation bi nga xam da nga ñëw pour euh, en toute euh, euh, liberté bëgg ñëw li nga créer li nga xamante ni moo di ñu mun a jàmm ak salaam waroon na am yi dérapage. waaw man man man déjà man problème boobu noonu man du ci sori du ci commentaire. ndax euh, man du ma encourager kenn du encourager kuy dal ci kaw journaliste. Mm-hmm. mais man. presse bi dañoo jubóowul dafa bëri ay naafeq ci biir mënuma comprendre ñii bu ñu dalee seen kaw ñëpp taxaw yuuxu attaqué leen beneen côté bi bu ñu leen attaqué ñëpp ne patt noppi moo tax man awma benn commentaire bu ma ciy def c'est-à-dire mm-hmm. mbir yi dañuy war a toll la yemale ñëpp gis nañ fi ba tey journalistes yoo xamante ne dañ leen a bund xatal ci seen wàllu liggéey mm. ñii ñu leen di menacé ñii ñu leen di tëj ci kaso bi ñii leneen ak leneen di lañ ci fekk kenn du wax mm-hmm. am na ci yoo xamante ne yenn cas yoo xam ne dégguñ ci kenn mm-hmm. maintenant bu ñu laalee benn boor bi ñëpp jug di wax moo tax man bokk naa googu man bokk ma ci mm. te loolu daf fi daf daf cee bëri ça ne veut pas dire que nag damay encouragé kuy dal ci kaw journaliste non mm. loolu moom du ma ci kii mais la ñu war a yemale bu ñu laalee côté bii nga nga nga défendre loo ñëpp mm. naqarloo loo ko ñëpp mais bu fekkente ne dañuy tànn ñi ñuy défendre ak ñin dul défendre mm. vraiment man loolu moom man man euh, débat boobu noonu du ma ci dugg du ci wax quoi mm-hmm. euh, bi nga xamante ni ñoom leader retenir nañ ko euh, ci bilépp gis nañu prise de parole bu Barthélémy Diaz bu Ousmane Sonko bu ñoom Aïda Mbodj mm-hmm. ba ci ñoom Maïmouna Bousso ñoom ñëpp ku ci nekk jël nga kàddu wax ji nag benn la woon que ni élection du am son mm-hmm. liste yeewu bi nga xamante ni conseil constitutionnel ginnaaw bu mu jébalee

mais boo fa demee matin c'est sûr que doo fa fekk nit maintenant boo fa demee matin di di di di di ci ci ñoo xamante ne dañ leen di taxer de presse de pouvoir xam nga mm. man man man moom sama point koy wax mm. xam nga Sénégal ñaari presse moo fi am mm. dafa am presse pouvoir ñi nga xamante ne presse d'état pouvoir bi dañu am seeni presse comprendre nga ak presse normale classique bi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di défendre les libertés di défendre askan wi yow manifestation boo xamante ne

ngi toj yaa ngi toj les les organisateurs quand même. waaw gars ñu waxante dëgg. dañoo ëppal daal en quelque sorte da nga xaw a ëppal presse bi li fi nekk yëpp kenn mënu ko wax. leen fa defee yëpp dans en quelque sorte ñoo xaw a tooñ seen a dem. ma défendre du ma vraiment du ma du ma encouragé. Mm. kuy dal ci kaw journaliste. Mm. mais problème bi mooy benn bu ñuy défendre nañ ñu yemale journaliste yëpp. Mm. am na fi journaliste yoo xam ne semaine bii paase rek dañ leen a menacé de mort déggu kenn ku ci wax. am na ci journalistes yoo xamante ne dañ leen di saccager. di mm-hmm. dal di di di façon intimidation ak menace bu ne. le camp du pouvoir dañ koy jëkkati di ko teg seen ko doo dégg kenn du ci wax. léegi nag lan lan moo tax ñii bedd ci ñii ñuy jàppale ak ñii ak nii moo tax man débat boobu noonu ñii la ñu def ak ci dugg du ci wax. Mm. parce que man dama gis ne ab naafeq dafa dafa ci mbir mi. Mm. te du ñu àtt dëgg. loolu moo metti ci Sénégal dañuy mm. gis dëgg gi nii ne fang. mais duñ ak euh, discours bi nga xamante ni ñoo ñëpp tenir nañ ko. Hmm. waaw xam nga li am ba am mooy. Hmm. Euh, fi may tàmbalee sax mooy ministère de l' intérieur. Hmm. waratuñu organiser élection. ndax li tax waruñ ko organiser mooy. ñi ko ñi organiser élection on peut pas être juge et parti mënoo bokk ci benn mbir ba pare di ko organiser. ñun ñëpp xam nañ ne pouvoir ministre de l' président de la république moo koy nommé. opposition bi li ñu bëgg ak classe politique bi mooy ñu nomme une personnalité neutre maanaam ku faral fenn pour que muy organiser élection. Mm. mais koo xamante ne far fenn ba pare di organiser mais da noo mën a euh, rawalee sàccal camp bi nga bokk da koy def. bu fekkee ministère de l'intérieur euh, doonatul ki nga xamante si sa gis-gis waratu ko organiser ani kan moo ko war organiser. une personnalité indépendante neutre et mm. ñàkkul ci dëkk bi ñoo xamante non fi ñu toll nii bu mën na sama xel mën na dem ci bëri bëri nañ hmm. ñi ko mën a organiser bëri nañ yow mi sax bu ñu la ko joxoon nga organiser ko il suffit que nga am ay experts yu la wër rek nga jaar xam nga ne mbirum mbirum élection bu fekkente ko génnee ci côté nguur gi état hmm, hmm. jox ko une personnalité neutre et indépendante critique yi dina wàññeeku parce que benn élection bu parfaite à cent pour cent amul amul élection boo gis moom faw mu am coow mais bu fekkente ne kii bokk day organiser mm. rax ci dolli kii décider day nekk koo xamante ne camp du pouvoir buy organiser mais day xool ñi muy tànn ak ñi muy tànnul xoolal ba 2022 yi fi jàll yépp nguur gi ñoom ñooy xool kuy bokk ak ku dul bokk képp koo xamante ne xam nañ ni kii c'est un sérieux prétendant dañuy def tout ba la dal na fi xale Sall dal na fi Karim Wade dal na fi ñeneen ñeneen ñoo xamante ne dañu def tout ba écarté leen parce que xam nañ ñi ay sérieux prétendant lañ mm. donc loolu tamit vraiment nekk na loo xamante ni mais ci cas de figure boobu noonu grand tamit tamit ni nga wax ni parce que euh, euh, lii euh, tamit génnee bi nga xamante ni ñoom génne nañ leen ko ci course bi tamit du ndogal bi nga xamante ni mën nañ jàpp ni dafa jógee direct ci ministre ci ministre de l'intérieur wala ci waa conseil constitutionnel constitutionnel en tant que tel pourquoi parce que euh, fa la ñu saytu rek mooy recours yi nga xamante ni ñuy déposé nañ waaw léegi kon lan moo tax ñamale wu nga xam seen liste dafa ah, am na taxawaay bu muy am ci élection mais conseil constitutionnel également am na taxawaay bu muy am ci te xam nga ni conseil constitutionnel yaa ma ko gën a xam jël sa micro nga taxaw ci mbedd mi laaj sénégalais lan ngeen xam ci conseil constitutionnel amul juridiction ëttub àttekaay bu sénégalais gën a critiquer gën a ñàkk wóolu que conseil constitutionnel. tout tout simplement non. ñoo di dugal non déedéet du loolu conseil constitutionnel lu président de la république bëgg rek lay def. parce que benn ña fay nekk moo leen di nommer ñaareel bi magistrat yi yokk seen âge retraite jëlee ko 65 ans parce que magistrat yëpp ñoom ñëpp 65 ans la ñuy comme tous les fonctionnaires de la hiérarchie donc léegi est-ce que loolu du du créer benn dépendance avantage yooyu nga xam ne dañ leen koy defal naka nga mën a comprendre professeur Ngouda Mboup wax na ko 2012 ba 2022 tous les recours de l'opposition ont été rejetés juridiction yi conseil constitutionnel yi cour suprême loolu noo ko mën a comprendre saa yu opposition dugalee ñu ñu bu pouvoir bi dugalee ñu validé ko loolu noo ko mën a ah, comprendre nag bu ñu fàtte ni quand même ba ñu déposé seen recours bu jiitu ko ñoom waa yeewi par bu yow. yow conseil doxinu conseil constitutionnel en fait en réalité conseil constitutionnel. ba Déthié Fall ci boppam taxaw ni fii conseil constitutionnel wax na fi li nga xamante ni mooy mooy le droit. man dama jàpp ñoom daal dafa mel ni en quelque sorte tamit quand ça euh, ne waa euh, loi bi fii. wax nañ ko bu ne non yoon bi waxuñu ko fii. yoon ni muy doxee parce que tamit loolu c'est Sénégal yaa ma ko gën a xam mënuñu continuer di nekk ci réew moo xamante ne justice lu président de la république bëgg dañ ko koy defal Sénégal on a une justice aux ordres du président de la république loolu moo fi nekk lu président bëgg ñu def ko conseil constitutionnel président bu fi mën lu président bëgg la ñuy def leneen lu ko président bëggul duñ ko def loolu rek lañ fi nekkee parce moo leen di nommer c'est ça la vérité loolu mooy li nga xam ne moom mooy situation bi fi nekk tant loolu mi ngi fi nekk nag ba pare tamit pouvoir bi bokk ba pare moom tam di mm. a jaar yoon a tëddee njaaxaanaay mm. gis-gis bu njëkk bi la mm-hmm. beneen gis-gis bi mooy euh, ñoom fi ñu ngi taxaw samp fa seen tànk que ni euh, euh, benn bokk yaakaar warta bokk gis nga dëkk bi bu tàkkee nekkuma ci ndab yi dama ci xaw a xëpp suuf la xaw a nugoo tamit bokkuma keneen du bokk dëkk bi bu tàkkee mm. ñi ñu jiite ñoom ñoo seen liste ba Sonko def ci déclaration waxoon ci ab ab tweet bu mu defoon. waaw mais dégg nga conseil ñi nga xam ne ñoom la seen xel màcc ci wàllu googu noonu muy constitutionnaliste yi dégg nga li nga xamante ne loolu lañ ci wax c'est-à-dire que conseil constitutionnaliste yi nga xamante ne dañu ne pour ni ñu organiser yi ñu defee yëf yi jaarul yoon ñi ñiy défendre thèse boobu moo ëpp fuuf ñi nga xamante ñoom ñooy valider thèse boobu noonu. dégg nga ci professeur Ngouda Mboup dégg nga ci euh, ki nga xam ne moom mooy expert électoral Ndiaga Sylla dégg nga ci également ñeneen ak ñeneen ñu bëri ñoo xamante ni wax euh, te am na ci argument yu bu ñu saa yu ñu tegee argument xam nga man dama bëgg bu ñuy tontu bu ñu tontu nañu répondre par des arguments professeur Ngouda Mboup ak Ndiaga Sylla argument yu ñu teg gisaguma benn constitutionnaliste bu féete pouvoir bu génn indi ay contre argument yu teggi seen seen wax yi ay rek la ñuy teg mais nañu indi ay argument ci wàllu yoon yoo xamante ne day tegge carrément ñii tees li li ñu wax donc nga gis ne kon vraiment li jaarul yoon dafa bari néew ma nag élection mën na mat cent pour cent mais am na ci yoo xamante ne taxawaay yoo xamante ne parce que tamit l'opposition a bien fait de réagir comme ni ñu réagir nii hmm. parce que bu ñu leen ko deful li xëb dal Khalifa Sall Karim Wade da leen di dal mhm. yow candidat bu sérieux nga ils font tout pour écarter la tax nga taxawee na le mhm. mais loolu mënatul continuer di am Sénégal mhm. saa yu loolu nag saa yu saa ko fi naree teg nag fu réew mi jëm rek ñoom ñoo ko fa yóbbu te vraiment réew mi jàmm lañ ci bëgg bëgguñu ci ay bëgguñu ci leneen lan nga bëgg euh, ko fi jëmee da nga jàpp ni mais situation euh, bi bu continuer dëkk bi ci tàkk la jëm c'est ça la vérité bu ñu continuer di di di boo boo defee boo bokkee ci pouvoir bi loo def kenn du lu mujj mais xoolal Ahmed Suzanne Camara kaddu yu mu yëkkati. ay menaces de mort di woote rey nit. loolu moom bëgg naa sax yow boo ko def boo ko waxoon doo fanaan.